الأمراض وكب من أنكر بافترادي براني باخي من الأمراض وكب من أنكر بافترادي لأوس كوري على آياتي abdan khadiman fasa bil hayati askuru sugran lazina saribab min asbi walil jirani quriba خذ آيات لا ترى لخيري مخجسة بانت لأسن خيري يجادل الجواد بالجاد وسول لي يكون سانخيا ndaje bii nag ndaje la boo xamante ni li yilla ji mooy ay ay mbokki taalibe di ay jullit bokk pas-pas ñoo fas yéene am ay kaddu yu ñuy leeral ci liggéey borom saam bii kaddu yi des na ko yóbbu des na ko wax ci ñetti anam benn bi mooy ak sant benn bi mooy li li bi jubluwaay bi li tax ñu taxawal lii beneen bi mooy li ñu mébét dëgmal ko suñu kanam euh, sant gi mooy sant Serigne Abdoulaye Mbacké yàlla bur bu baax a baax a baax ci liggéey bu am solo bii mu liggéeyal suñu borom jaarale ko ci Serigne ma ci Serigne Mor Diarra borom sa maamam muy liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo la boo xamante ni jullit yi yëpp ko bokk rawatina taalibe yëpp kon ñi wax ni képp ko ashhadu an la ilaha illallah ci liggéey bu ci nga bokk liggéey bii mu doon sémbul bu rëy boo xamante ni sëñ bi mi ngi ko mi ngi ko ngi ko xayma ci euh, un milliard quatre cent millions yu teg maanaam benn milliard ak ñeenti téeméeri ak ñeenti téeméeri millions kon son sémb la boo xam ne du sëmb bu ndaw ba tax na loolu nag moom lañuy ci la sant sëriñ bi ci sëmb bu ñu sëmbal ba ñu ñëpp jullit yi ñu mën cee jariñoo te yéen bi sallallahu alayhi wa waxoon na ne képp ku tabaxal yàlla sunu borom lu toll ne euh, euh, kaaf ak xëti wala kaaf ak pitax suñu borom dana tabaxal ñeen lu mag ci aljanna kon sëñ bi yéene ñëpp ñu texe ëllëg moo tax mu séemu mu séemu liggéey mag bii gannaaw bu nu santee sa Abdou Diallo Boor ci kàddu ci liggéey bi mu liggéey pare nag ñu leeral li nga xam ne moo taxoon ñu sos lii muy comme ni ma ko ubbee woon ci njëlbeen gi muy ay ay ay di ay jullit yu bokk pas-pas bokk fu ñu jëm ñoo toog mu yàgg ñu xalaat ne liggéey bu toll nii ci keppaar ak borom saam bépp jullit ak fu jullit nekk taalibe rawatina nag waa Mbàkke gii war nañ cee mën a taxawaay taxawaay boo xamante ni naam doon nañ ci taxaw waaye taxawaay bu gën a rafet booba ba taxoon kuréel gi toog waxtaan daan ne li li ñuy njëkk a def moo di fexe ba recensé lu mat cent personnes téeméeri nit li nga xam ne dajal nañ ko mu ngi toll ci juróomi téeméeri saak ak fukki saak muy cinq cent dix saak moo fi teew ci liggéey bii sant nañ ci yàlla bu baax a baax baax ndax ku ko xalaatoon téeméeri saak dem ba am juróomi téeméer ak fukk loolu na jàpp naa liggéey bu nangu dëgg la te Sëriñ Tuubaa waxoon na ne kii ñuy liggéeyal na borom saam képp ku liggéeyal da nga am da am ñeenti fay moom Sëriñ Tuubaa xaalis musu dan la fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan la fay yàlla sunu borom tabaaraka taala dan la fay moom borom saa am na fay comme fay nga am fay. kon nag tey jii wax dëgg yàlla suñu xol suñu xool sedd na lool suñ xel dal na ndax yéene ji day yéene joo xam ne yéene ju rafet la ndax lii nga xam ne mooy néegam yàlla bi nga xam dañ ko fay taxawal muy kër maam borom saam. maam borom saam di magi seexul xadim bokk mu soxna jaara bu so ak sëriñ Mor Anta Sali te sëriñ tubaa waxoon ti moom wax ju rëy ja daan ne maam borom saam mi képp ku ko liggéeyal yàlla dana la fay yonent bi dana la fay man sëriñ Tuubaa dina la fay maam borom saam am nag fay dana la fay sëriñ Saliou Mbacké mu ko déggee daan ne man mii tim fi nekkal sëriñ Tuubaa dinaa la fay kon juróomi fay yooyu nga xam ne suñu borom moo ko defal borom saam sëriñ tubaa wax ko kon kooku ab liggéeyam mooy liggéey bi yàlla ndax ku ko xam daana daana naafila téeméeri rakka ci kaamil bi di nit koo xam ni jaamu yàlla ak ak dimbali mbindeef yi ak toppatoo mbindeef yi loolu rek la fi nekkee woon te koo xam ne maanaam am na cër boo xam ne bu mag a mag ci suñu borom am cër boo xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam am cër boo xam ne ci Serigne Touba ndax Serigne Touba mas naa wax ci njaareem woolu maam borom saam ba mu ñëw mënu ko duggal ci néeg bi nga nuy gan gi ba duggee ci néeg ba fekk fa koo xam ne ni ku toog ci lal ba mënut wax mën na ko kii mooy Sidina Jibril da daroon laaj sa mag ñi tuddee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom laa bëgg a gis maam borom saa moom moom rek moo ma sa am loolu. kon nag ku ku koy liggéeyal da nga xam ni da nga am ngërëmal suñu borom kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp koo xam ni andi nga fa sa addiyee rek egsi na xam naa ni incha allah euh, danañ ci panel yi ak ci internet bi. ak ci télévision bi yëpp dana jàll dataayal ko ndax xam nga tey dafa xat waaye dañuy tudd dañuy tudd tur yi rek kon ku sëriñ sëriñ Abdou Mbacke andi na fi ciment sëriñ sëriñ Mamour Mbacke mu sëriñ Modou Assou mi nekk Amérique ci Washington andi na fi cinq tonnes neuf cent andi na fi ciment sëriñ Mamadou Ndiaye Mauritanie yabal na fi délégation bu teg bu takk andi na fi ciment Alaaji Ndiaye commerçant ak Abib Ndiaye moom it andi na fi ciment sëriñ Thierno Samb bu Amérique andi fi ciment Cheikh Seck commerçant andi na fi ciment Khadim Thian moom it andi na fi. aji joor Gueye ak soxna fallu Ndiaye ñoom ñëpp ànd nañ fi sëriñ Abo jaw ak sëriñ Cheikh Diaw ak sëriñ Cheikh Seck tamit amaan na cotisation yoo xam ne yónnee waat nañ ko ci panel bi loolu jotaguñ ci waaye yëg yëg naa ko ñoom ñi ngi dajale ci panel tëkku ati jokkoo taxaw Mbàkke liggéey bi nag ñu xam ne jëmm ji nga xam ne mooy borom saam ba tey di xaadimal Moustapha ci noonu moo engagé liggéey bi boole kook liggéey yu bari ci njaboot gi taxawu njaboot gi dimbali leen yaatal leen te di leen liggéeyloo liggéey boo xam ne ci sëriñ bi rek la jëm barab bii ñu toog nag muy jumaay maam Mor Jaara borom saam magi mag euh, ku xam na ne yitteem yëpp jaamu yàlla rek la muy jëmm joo xam ne euh, ñëpp mën nañoo xam ne jaamu yàlla gi ñëpp koy seede xam-xam bu rafet bi ñëpp koy seete juddu bu rafet bi ñëpp koy seede ndax kim ko bokkal jëf gi ci diine ñëpp a koy seede ndax da koo jëf gis dimbali mi dee ñëpp a ko seede ndax da koo jëf ñu gis waaye lii nag daa doon ab liggéeyam boo xam ne waar la waxee ne ci la ko ñëpp fekk ci la nekkoon mu di liggéeyam muy jaamu yàlla téeméeri rakka ak lam ci doon def lépp ak nag sanc sanc yu bari nag taxawal fa lu mel nii kon bi sëriñ bi ñëwee dañoo gis ne kaddu gi nga xam ne moom la du Mamadou Fadal waxoon bi muy yeesal barab bii di ko defal borom saam kaddu googu rek la sëñ bi dégg ndongo lu ne amel na sëñ daaraam alarba euh, euh, ma gis ne man de sama sëriñ sama sëriñ bi xaw ma lu di bëggam lu di néegub yàlla diirab may ne ci loxoom moom laa gis mu di ko saytu moom laa mu nekkoon ca kon naa ko defal loolu ngir gën caa sàkku bànnee ndax sëñ Fallou bokk na ci mooy jëmm ji nga xam ne jëfam laltaay na barab bii defe naa sëñ suñ maam Maxtaar Xari Jeng sax am na bayit jëm ci wa bassara fadilun xitman abana banaal bux loolu sax la njëkke banaal bux loolu fadilu sol mazaya musallal ami walidin ashaami sëñ Maxtaar Xari Jeng moo def bayit yooyu wax ni banaal buux loolu faadilu sëñ sëñ fallu mi nga xam ne mooy sang bi di ku baax ki di ki di ko ràññee ko gi sol masaya kii bërëm nga nelli banaal buux loolu faadilu sol masaya mu sallal am mi jullikaaya bàyyi taxam bii di sëñ Mor Jaara moo ko tabax banal buxloolu faadulu sol masaya musallal ami walidina shaami suñ suñ waajur wi nga xam ne mooy borom saam mu teg ca ne wa bassara fadilun xidman abana wa zaadal bisu son dindi wa saami defe naa kon sëñ bi li wax léegi ne jëfi sëñ Fallu la woon sëñ Modou Bousso Dieng dikk jël jëfam dugal ko ci biir teg ko ci ngir wéyal loola loola rek mooy royaat di dox ba nëgani kon day jëf joo xam ne dafa tegu ci fondam la masjidun sa ala taqwa min awali yawmin ahaqu an taquuma fii jëf bu fekkee dafa tegu ci fondement bi mu war a tegu des ci am yaakaar te des ci rafet njort te ñëpp itam dañ ciy sawar loola nag moo waral lii mu mel ni nag Mbàkke day barab boo xam ne day barabub Sëriñ Tuubaa doon barab boo xam ne des ko war a xam te jàpp ko bu baax te liggéeyal ko li sun borom wax ci suuratu Ali Imran dafa mel ni mi ngi tàmbalee feeñ ci dëkk bi wala tahinoo wala tahsanoo wa antumul aalawna in kuntum muminin yàlla def ne bu leen doye bu leen ñàkk fayda bu leen kandang kandangi bu leen doye di seen bopp wa antumul aalona yéen ay supérieur in kuntum muminin waaye nag à condition fekk na ngeen gëm yàlla kon nit ki day gëm yàlla te xam boppam xam lim doon bu ko defee te bañ a ñàkk fayda bañ bañ a doye mel ni kon dëkk bi biñ ko sancee ak léegi ci ama saqatadin muy 1194 ci gàddaayu yonent bi ni ko sëñ Moussa Kawe ca ca ama saqatadin la suñ maam ma aram sañcan ñorax laan tan tànk kànkataasu kànkataasu cee njërëm ngërëm njariñ noonu la ko waxe waaw ca ama saqdadin mooy 1194 ca ama saqdadin la sun maam ma aram sañcan ñorax laan mooy mbàkke ñorax laan kànkataasu cee ngërëm 1194 boo ko calculé ci ci ati tubaab yi moo lay jox 1780 diggante 1780 ak 2020 mi boo ko seetee mi ngi ñàkk ñaar téeméeri at ak ñeen fukk nga xam ne kon Mbàkke bu dee ci atti nasaraan yi am na loolu bu dee ci atti atti atti atti weer wi mooy ati jullit yi am na ñaar téeméeri at ak ñeen fukk ak juróom-ñaar. fii ñu taxaw nag tey kenn ku ne xam na ne fii ñu taxaw lay taayub sëñ Fallu la ci lañ taxaw ci la jumaa ji taxaw nii lay taayub sëriñ Fallu moo ko taxaw moo ko téye nii kenn ku nekk li fi Fallu defoon sëñ Moodu bu sa jëng defoon fii. xaajaato xaajaatu xaajaato xaajaatu fépp suuf génnut biir jumaa ji mi ci biir jumaa kon moo ko lay laytaay moo ko téye waaye nag sëriñ Modou sëriñ Fallu dafa bëgg lu gën a déppoog jamono comme la ma waxoon ci jumaay tubaa rek ba mu noppee Cheikh Abdoulahi mii keroog bi ma demee ci moom ma waxtaan moom ma ne ko Mbàkke tur wi ñu lay booyee mooy yàllaay buur ku génn jàkkaarloo xam ne sa tur wi wuyu na la koo xam ne nii fan euh, fanaanoo million seen seen bi liggéey bu ku gis jumaa ji dana xam ne yàllaay boor sa tur wi na la kon yàlla na yàlla def mu yegg ak jàmm li ma ci dolli nag mooy ñoo ngi woo jullit yëpp yëpp yëpp yëpp ci liggéeyab lislaam bi ñëpp ñu ngi leen di woo ku am dërëm ku am ñaar dërëm képp ku ne ak foo mën a bokk ñu ngi la ciy woo kuréelub liggéey Sëñ Tuubaa nag wërta nekk benn wërta nekk ñaar wërta nekk ñett doñ doñ la war a doon xorondoom ñii jóge na ñi ñii jóge na la ñii jóge te ñëpp bu ñëwee ñoo bokk benn barab bu ñuy sotti kon bari na xalaat yi bari te dëppaloo te dëppaloo gi lépp fii rek lañuy ñuy sotti bu ñu paree kon na kuréel yi bari. ba fii nu toll bi ñu mujjee toog ak moom mboolem li war a dem ci soorol yi sëñ bi da ko yëkkati daal di joxe ñu ñu ñu bàyyi xel loolu daal waaw mboolem li war a dem ci soorol yi sëñ bi dañoo toog ñu ne nangam bu ko defee dana yegg barab sangam mu ne kon de lii de def leen ko ci du loon la ñu ne waaw mu ne kon baax na leneen lu fi ñu ñëwaat ñu defaat ko ci fii ñu toll nii nag dafay mel ne liggéey bi day gën di wane boppam ndax am na kuréel bu fi juddu ñu koy wax Mbàkke ca kanam yàggagut boobu danaa ci insister dafa mel dañ koo royee ca Touba ca kanam te lu yoon wi moom roy ak romb rek jàpp naa ne moo fi nekk lu baax da nga koy roy li nga xamul lu mu doon nga romb ko ndax ñooñu noonu dañoo mat a roy ndax boroom saam mi saam yi li muy bari bari bari moo ko gor ay njabootam ñoo fa dëkkee ñu ñii saamu suñ baar ji gën dëkke si ñëpp la tiif ak la ñu wër lépp ñoom ñoo dem wutal nu ay pompe dikk defal nu ko ca biir bañ yégee ne tumuranke nañ bi ko suñu abi bu yégee ne moom suñu fàlilu dafa daal ne borom saamkat la ñu war a njëkkee ji kon buñ xamee yitte ju mu war a doon bu yitte yi dajee nañ njëkkee ji borom saam moo fa ñëwal boppam muy teraanga ju rëy joo xam ne jëmm ji la ko defal ndax su ko defutoon jëmm ji moo ko war a def te xolam may na ko bu du woon liggéey bi moom moo koy defal boppam balañ koo jàmbat kon ñooñu mat na noo loolu lu ñu war a xam la ñu ñu war sant lu ñu war a gën concurrence du ca nekk taalibe yu royante la ndax lii ne fii bu ko sëñ Muntaxa soxlaa ñu jox ko ko ñoom la ne ca ñoom bu ko sëñ bi soxlaa ñu jox ko ko ñu bàyyi xel ne lépp dara génnu ci sëñ Tuubaa ndax bu doon sëñ Tuubaa dara du mën a kon ñoom it sant nañ leen gërëm leen kon waa Mbàkke ci kanam ñëw nañ fi tàmbalee ci jàkka ji ak li ñu def ci jumaa ji wax nañu ne 3 millions 900 def nañ ko ci def ko nag a nag maanaam sëñ Abdoulahi yàlla buur addee xaadim Mustafa addee maam borom saam bi xamee boppam nag ci la dikk nag fa nga xam ne fa la magam ya yeman ak waajuram yi ak maamam ya mu tàmbalee foofu moom it jëm ca kanam te geesuwut geesuwut gannaawam kon mi ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp xam nañ ne daal liggéey bi moom am nañ ci yéene bu baax a baax gis nañu taxawaay biñ ci am sëñ bi nag moom mi ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp ndax saa bu masee joxe ndigal rek lu joxe ndigal rek jëfe nañ ko ndax defe naa bi bi njaboot yi mujjee joxe seeni sas ak léegi yàggul waaw kon ñeneen dikk topp ci ñeneen dikk topp ci boo gisee na xëy na liggéey bi demee nii ndax jumaay njaareem defe na naa xaama alsasin ci la ko Serigne Touba rëddoon ca tànkam bu tedd ba muy muy mi mi mi mi mille trois cent trente cinq muy at mi sëñ sooy bu ganee jamono defe naa tollu 1917 defe naa tabax nee nañ ci lu mat juróom-ñeenti at mu door a mat sëñ bi julle ko boo demee ci irwa un nadim sëñ Mat Lamin doy wax ne xëy na benn yoon bi mën naa am julli na ca ñaari yoon wala yooyu ñaar yi daal benn bi mi ngi koy nattable waaye benn moom sëñ bi moom fekk na ko ba julli ci jumaay Tuubaa ku ne gis na biñ ko tàmbalee ak bi mu yeggee kon lu sell moo aajo ak ak ndànk-ndànk mooy aajo ak tey ndax segg gi mooy tax rawatina borom saam ndax niñ ñu ko waxee woon keroog dafa doonoon jëmm joo xam ne ni ko sëñ sëñ sëñ sëñ baara junjë léegi jaamu yàlla rek ci lañ ko xamoon ak dundelu lew te yonent bi dafa ne woon asibo taamakum bi zikrillahi wa salaati wala tanaam wala tanaamu alayhi fa taqsaw qulubukum asibo li muy tekki ci arab mooy leen waaye aw ñam kenn du ko ruyal reesal la ñuy wax reesal leen seenu ñam ci julli ak tudd yàlla kon mooy li sëñ Mor Diarra daan def saa bu bu demee ba guddi ba mu mu gannaaw bu joxee njëlal këram ba noppi mu wut ab gàtt wut ay cere andaari yu bari ceeb mu bari def ko ay cere togg ay ñam yu am solo jox ko mag ñi buñ xéewloo ba jàpp ne war a tëdd moo ci des mu jox leen ay dog ñii di julli fee ñee di sikkar ñee di ñee di wirdo ñee di jàng xasida nga xam ne seen ñam wañ lekkoon asibo taama jum taama gum jooju si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon leen seenu ñam eh, bi sikri la wa salaati waaye balaa tanaamu alay bu leen ko lekk ba noppi tëdd di nelaw fa taq sa qulubukum ndax day loolu day wowal ab xol kon nag sëñ Mor Diarra loola moo xamoon doon ko dund sëñ Fallou xam ko moo waral bi mu gisee ne kii ab sëriñ jàngal na ab së ab la te war na ko li mu waxee woon ab sëñ daaraam la te war na am na fu mu ko war a war na koo defal ba mu defal ko jumaa ji loola yakaar naa ne kon mooy wane ne borom saam li mu doon dund kon ñëpp xamoon nañ ko. mu nekk liggéeyam suñ Tuubaa bee nga xam ne suñ Tuubaa ni ko digaloon de te Cheikh Moustapha tàmbali woon ko yàlla dogal na ànd nañ ko ba def ko ni ko sëriñ bi bëggee sëriñ bi nag moo ma yebalaat fii képp koo xam ne àndoon nan fee loola ca rawoon sëriñ bi na nga ko dabu fii képp koo xam ne jàppoon nga ne dara rawul la ca it loo ce bëgg mu dolli ko it na ñëw ñu ànd ko fii daana fii ak fee benn barab rek la lépp sëriñ bi lañ koy defal te kii sëñ bee santaane nañ ko ko defal ndax mooy léppam kon ñu gis ne loola bi mu demee ba ci kanam ah sëriñ Muudu bu sa jàng Cheikh Mamadou Cheikh Mamadou Moustapha Falilou bi mu demee ba ci kanam rek bay gën a ndax moom bëgg sëñ Fallou ku ne xam ne moom rek la doon wër ci biir liggéey sëñ Tuubaa bi dafa daan ne xool naa xool nag lu ma war a gën a defal sëñ Fallou jaajuwaat dafa daal ne lee mu defaloon maam Mor Diarra de ak lam ca waxoon naa dem yeesali jiwaat foofa kon bi mu koy yeesal jàpp naa yàgg na waaye yàggu ndax ñun ñii fi fekk ak ñu bari yaakaar naa ñu taxaw fii nii moom it defar ko euh, kemtulaal kattanam ba mu méngoog jamono joojee ñu jàpp ne nag ka digaloon ñooña moo digalaat jëmm ji kon war naa yaatuwaat war naa gën a dëppoowaat ak jamono ndax kenn ki rek lañ koy jëfal moom it nag mu di dakkat bëgg ak sëñ bi dakkat yi bëgg ak ñooña ko doon def yeesalaat ko yaasalaat ko yàkkaliwaat ko ba noppi nag keroog bi mu wootee fii daan ne man de jumaa jee ma ñor fas yéene naa lu ma am def ci luñ ma jox ma def ci ñun de na lu ne ku mas a toog ci kanamam mu wax la jëneen yitte jurut jumaa ji yaakaar naa nit mosu koo dégg loo man a wax ak moom wax ji lu mu gudd gudd gudd bala laa mën a tontu wala xolom sedd da ngay lu jëm ci jumaa ji rek waxaatul gëneen bëgg lu jafe-jafe la nag ñu bari danañ dem ba mujj ñooy lii laa bëgg dem ba ca ñu xoolaat leneen jàpp ne loolu laa gën a jàppandi sax ñooy ndàngam laa bëggaat bëgg gu bari koo xam ne kenn du xam noo koy lijjantee waaye moom keroog ba mu nee lii ma ñor ba léegi ñun xamuñ lu ne wat moo ma fi ñoraat ñu bàyyi xel na nag liggéey bii jar naa bàyyi xel ndax moom da koo ñor ba nga xam ne lam ko tàmbalee woon ne man de lu ma am def ci lu ma waay joxe ma defal la ci ba fii ñu toog nii nii nii sëñ bi ca la ne boo seetloo def na ci six cent quatre-vingt-douze millions ànd kook ay njabootam yoo xam ne at mu ne mu joxe ndigal ci biir kër borom saam gi kenn ku ne la jay saw sas nga ñëw jébbal ko ko boole ko xol bu sedd guyu koo ci xam ne yàlla man loo na la ko it nga waaxu dikkir sa digganteeg moom nga xam ne mooy sa léppit nga yëkkati addiyee ne ko lii mooy addiyee addiyee borom saam sama diggante yow ma jox ko sama digganteeg borom saam bala ngaa dem rek mu wan la fi koy def lu ñu ko jox woote na mbaa bu yëgee sax ne ñi ngi ko koy bëgg a jox sax dana woote ngir ñenn ci ñun buñ mënee ànd ñëw teew buñ ko joxee mu teg ci suñuy loxo suñ munta andi tee ko fa teew donte seex gaawan kala wax dëgg yàlla mu teg ci loxoom ne ko lii kat def leen ci liggéey bi li wóorit mooy lépp loo xam ne ab liggéey dana tax mu mel ni mu war sëñ bi moom wutloo nañu ko ba wut nañ ko ñi nga xam ne ñooy xool ba ne ab liggéey nii la war ngir seen xam-xam yegg ca ñëpp sëñ bi wut na ko te kenn ku ne la mu war a jëflanteeg yow donte ñooñu ñi ngi liggéey sëñ Tuubaa ci biir ëttëb Maam Mor Jaara bi lu ko war ci ñoom rek ci lu baax rek mi ngi koy def la ca dolliku mooy fii nu toll nii bim nu mujjee woo ay njabootam niñ daan def ñi defate ko dajale ay addiya addi yooyu di lu am solo bim dikkee da ko booleeg lam yor woonu ban daje mu ne woo leen ñoom ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi. te suñ bàyyi sëñ Moustapha bi too da daan wax ne bi sëñ sëñ Fallou di ubbi si marché bi dafa xam xamle woon ne bu doon ubbi ab marché dong du ma ñëw ubbi marché dong taxumaa ñëw waaye li ma di li ma indi mooy ñu xam ne tuubaa ak Mbacke benn lañ. mbakke mooy ndeyu Touba su Mbàkke amutoon Touba du am te yaakaar naa ne wolof da ne bala nga ne naam ne fa gannaaw fii la sëñ bi feeñee jamono kon mënees na ci loolu mënees na cee déggee wax ji wala ñu mën ko cee firee prix woon woo xam ne dana rafet te dana dëppoo ak lislaam dëppoo ak taalu bi mu teg ca ne bu bu Mbàkke sojee Touba saqat kon nag ñi ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp di sant itam euh, presse bi rawatina Alaaji moodu Guèye mi ndax euh, bari na loo daan loo daan bëgg a jotal muy jafe te léegi jotal gi yomb na waajo doon woy rajo la mu waxoon ne ka annama kullu usnin usnu sariyatin wa kullu naa in yunaadi naa iyan omaru rajo tax na tey nopp bu ne mel na ni noppab sariya kuy wax ku ne it sa sa kaddu mel na ni kaddu Omar ndax booba jullit yi dañoo nekk ci réewi Perse yi muy Iran di ko ubbi Omar nekk ci Madina di xutba seen julli seen yéefar yi di doxe julli yi ca gannaaw ci fa ca ca ca réewi perse yi mu ne yaa saariya yaa saariya aljabal saariya bàyyil xel bàyyil sa xel bàyyil bàyyil xel doj wi ndax booba noon yaa ngi wër ci gannaaw xeer yi pour pour bett leen yaa saariya aljabal fi mu ne ci Madina saariya dégg ko ca fam mu ne ci réewi perse moo tax kooku doon way rajo wax loolu ne kun ka annama kullu usnin usnu saariyatin wa kull na in yunaadi naa iyan omaru qad kuntu axsa bu yootal la fi muntaxilan fasaara ilay fasaara yasan ilay lahu wa samaru la ma daan jog di ko wuti ak di ko di ko jiima seeti rajo moomu koy indi léegi sama biir kon nag ñi ngi sant ñi yor presse bi ndax kero bi ñu dajee fi ñoo ko tasaare ni lii yaakaar naa ne bu buñ fi jogee ko ko war a jot wala nga war koo dégg yaakaar naa sa kàddu da nga ko dégg boo gisee ñuy leeral loolu jumaa ji kenn da ko yurut ku du sëñ bi amul ku koy yeggale amul ku ci nekk di ci def ak dindi sëñ bi moo yor yëfi boppam moom moo ca jiitu moo ne ci digg moo ne ca ginnaaw lu ko waay joxit mu defal la ci ku ko joxutit moom lu mu am def ci kon loolu ñëpp dañ koo war a xam kuréel bii na nga xam ne ay njabootam lañ di doomam mosu ñoo ñàkk bokk ci liggéey bi mosuñ jee jëlee seen loxo seeni i xalaat seen i yitte mosuñ ko cee jëlee lu mat fukki fan ak ñett ñoom dañoo dox nii de xalaat rek sëriñ bi ñu waxtaanee ne ko ah yéen li ñuy dégg moom nee na beneen kuréel dafa judd parce que loolu dañ ko war di laaj lan la mooy wax lu baax damaa dikkal rek ma xam ne sëñ bi ku ne da ko war a liggéeyal sëriñ jatara ah mu ne ku ne da ko war a liggéeyal ma xalaat ne ñun war naa am lu nu man ma ne waa ñun benn saako di ko ko laaj dana gaaw te it wax na dëgg nag sëñ Seex Gaynde Faatma comme li mu wax laaj lu ndaw lees man te jëmee ko fuñ xam kon moo tax mu ne benn saako bi mu benn saako boo xoolee bi mu njëkkee dem ci suñu laat busa ñoom busa busa yi dañoo sawar ngir benn saako xam nga daa bëriwul waaw bu ne woon fukki saako mën nañ ne ba weer wa dee wala wa ca topp wala ba ma dem Dakar ba ñëw waaye nag bi nee benn saako dañoo daal dem suñu laat dem ci suñ murtalaat dem ci suñ saaliw suñ pas ñoom suñ jiirim suñ daam suñ suñ pap bañ ne aw kayit sax yëg naa ne ab ab kaye la leen jox na leen tàmbalee leen bindi ñëpp rek ñu yaatal ko fukki fan ak ñett kon buñ ne téeméeri saako lañ soxla dem ba mën a am Euh, juróomi téeméeri saako ak lu topp te ak fukk te mel na ne ñoom buñ ko jàppoon ñaar fukki fan mën nañ fee junni junniy saako kon ñoom wax dëgg yàlla jàmbaar ngeen yoon wu rafet rafet rafet la li ma bëgg ñoo xam ko daal mooy sëñ bi moom ku ko jox milliard yayoo na ko ku ko jox junni yayoo na ko ku ko jox ñaar téeméer yayoo ku ko jox fukki ne ko defal ma ko ci mu defal la ko ba noppi ñaanal la nag nga am pay gam am sax moom ndax loolu mooy yéeneem lool la suñ laa doon leeral naan sëñ bi ne ne kilo saako ak ton ak lépp a ci am kon daal na xam ne sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp. sëriñ Abdou Yàlla Buur jumaa ji un milliard quatre cent millions la boobu ba léegi mi ngi ko ànd ak njaboot ak Mamour Diar gi ak taalib yi ak jullit sëñ bi nag nee ku ñëw da ko ci fekk ku ñëw tim da nga ko ci fekk gis nañ ni boobu ba kenn ku ne yaa ngi ñëw ànd ak moom ci néegam yàlla bi kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp danañ amaat beneen jotaay bu yaatu bu ko kenn kon ne li ngay joxe dañ ko dataay yi dugal ko ci panel yi dugal ko ci internet bi ba àdduna sépp xam ni kenn ku ne li ñu joxoon dugal nañ ko fu ñu ko war a dugal kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam te sëriñ Abdou Yàllay Buur jumaa ji un milliard cent millions la boobu ba léegi mi ngi ko ànd ak njaboot ak Mamour Diar ak taalib yi ak jullit yi sëñ bi nag nee na ku ñëw da ko ci fekk ku ñëw tim da ko ci fekk gis nañ boobu ba léegi kenn ku ne yaa ngi ñëw ànd ak moom ci néegam yàlla bi kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te xam ni incha allah danañu amaat beneen jotaay bu yaatu bu ko defee danañ dataay kenn ku ne li ngay joxe dañ ko dataay dugal ko ci panel yi dugal ko ci internet bi ba àdduna sépp xam ni kenn ku ne li joxoon dugal nañ ko fuñ ko dugal kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp baraani baaxi min al amradi وكبما أنك ربي احترادي لأن شكوري على آياتي أبدا خدي من فاس بالغايات أذكر سكر الذين سربا من أسبي وللجيران قربا xustu ayatan la turali xayri muxjisatan banat li usni xayri yajadulul jawadi bil jadi wasulu li yakunu san xiyadi ayati yalbaxil kitab al ansama ولا ألاقي كل من تعسما